Heavy Mess.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 lu toll ci juróom-ñeenti million nga ma bi loolu amee nag comme que waa ji dafa tàggoo xelam ab xëccoo mujjee am ci diggante famille bali ba fa nekk ak parieur bi cëy Sénégal ma ne boo demee waa ji daan nañ ko romb sax duñ ko toppatoo fii nag mooy Sénégal seexlu nañu lépp ba mu des xaalis ma fi mu toll waa ji tàggoo xelam dina gis yaayam gis ay tantam gis ay bàjjanam ba ci ay mbokkam te moo ne yàgg nañ ko romb ci mbedd mi duñ ko sax xool mbaa toppatoo gis nga de Sénégal xaalis rek xëccoo bi nag bi mu taree mbir mi mujj naa teeri ci loxo yoon ba procureur jot ci yëf yi daal di ordonné ñu ubbi ci ab l'enquête gannaaw bi l'enquête bi sottee nag procureur li mu mujj def mooy ne nañu yët juróom-ñeenti millions yi yaa yi waa ji tàggo xelam ma ne looloy dëgg nag ndax moom moo joué ba gañe ndeysaan nee ñu bi ñu demee ba di ko yot yëf yi ñu ngi ko fekk mu doon maire bu màgget ba noppi nag ca ba noppi rax ci dolli mu nekk handicapé doon yalwaan ci mbedd mi ëskay xoolal ma lii ni mu méttee rek ay nit naroon a jóg gis ne waa ji dafa taggo xelam rek ñu bëggoon ne tuŋaañalal ji réew mi yërmandee fi jeex moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax ñaari wujju peccorgo yi li ñu def ëpp na muy jaariyatu ak aminata ñoom dal dañoo xeex xeexoo bu metti ba polisu si kambaaw mujj leen defe réeré waaw góore waay ñaw ma bu seen borom kër yi xëyee uti dépense lu ne ñu daj ko ci àll bi bàyyi leen ci kër yi ñu mel ni ay xajaki ki muus lëmbe kër yi dëkkee xiiroo suba ngoon ba seen borom kër yi stressé leen di mujjee ray ma ne violence bi góor yi di dund moom miti di nga ci gis yenn saa yi ko wàcc sax di wër di taxawaalu ngir bañ a egg këram rek ndax fitna waaw sëy si si kër goo xam ni ñi leen fa indi ñoo bokk nday ak baay ngeen fekk leen ñu mel ni mburoog soow di dund lu dàq mburoog lem ngeen ñëw ci kër gi indaale seeni jikko yu bon dëkkee indi fitna ci kër gi bés bu nekk ñu àtte leen xuloo suba xuloo ngoon xoolal ma lii rek aminata ak jaariyatu ñaari wujju peccorgo yooyu gannaaw bi ñu xeexee ba noppi jaariyatu daa dem ca l'hôpital bu pikin ut fa certificat médical am aminata dem ca centre de santé bu Kër Massar ut fa certificat médical am ba yëf yi teeree nag ci loxoy yoon ñoom ñaar ñëpp mujj nañ leen déféré pour cause blessure volontaire ñaw lakk le huit moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax waaye réew mi day bëgg a tas wala addunaay bëgg a tukki xale bu jigéen bu ndaw bi nag li mu def ëpp na ma ne xale bi treize ans la am di wuyoo ci turam Sidibé ab moromam moo nangu faram xale bi daa di jël paaka fekki morom ba biir jëm ñoom ñaar ñu xeexoo mu jam ko paaka ci mbag ëskay yëf yi nag nee ñu nii la demee xale bu góor bi di faru jar wi ñaari xale yi ndaw yi di xëccoo te am 15 ans moo bind ab lettre kaabari di beneen xale bu jigéen bi ñu jam di ko ci wax ay waxu cofeel ak mbëggeel xoolal ma lii rek ay xale yu am 13 ak i 15 ans di farantu bay bindantey lettre baax na rek yàgg naa leen ko wax ma xale yi léegi lu ne lañu xam bi MC Dibé rival njabalu kaabari bi yegee lettre bi ci la xunde décidé dem attaqué ji kaabari mis surum le xale bu góor bi muy bëgg ci la demee fekk ko këram ñoom ñaar ñu xeexoo ci la M Sidibé jëlee paaka jam ko kaabari ci mbagg baax na rek xale yu am fitu def lii ci âge bi <clears throat> ah, nañ dem rek yoon nag def na liggéeyam ndax ñoom ñaar ñëpp yoon mujj na leen a defeere <laughs> waaw góore waay ay xale yu ndaw yuy farantu bay xeex moo tax ma ni nag xale yi ay victime victime lañu fi mu ne non assistance dëgg la ñuy dund waajur yi démissionné bàyyi leen nag média yi mbedd meek internet bi film yi di leen jàngal mbëggeel waykat yi di leen jàngal mbëggeel moo tax xale yi leçon bi ñu gën a mokkal fi mu ne mooy mbëggeel dëkkee farantu moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xew ca mbuur jéggi na dayo mbir mi mu ngi xewee ca croisement sali ci guddi 23 jëm 24 ci weeru septembre ab coxeur ak benn mécanicien ñoo doon xeex xeex bu metti waa réew mi moom li ñuy xeex lumu ba musiba mujj cee am ndax coxeur bi dafa jël paaka jam ko mécanicien bi ba mu jaare fa ñàkk bakkanam ay lay la la cay mim réew léegi nag senegal ñoxor njaay rek ñu génne arme paaka jaasi ba ci pistolet kenn xeexatul ak say loxo xefa xippi ñu tiire mbaa ñu suuj kenn xamatul lii lu mu doon xol yee bon bi mu defee musiba bi ba noppi fëx la def daw waaye way takk der yi mujj nañ koo teg loxo <laughs> xam nga ne dóora ci waay mooy li ma waxoon rek fitna daal baaxul te seytaane dafa bëri doole moo tax daal rek dal rek dal rek sinon rëccu rek rëccu rek Sénégal nag léegi kenn xeexeetul ak loxo moom daal paaka pistale tuy suut tuy suut moo tax nii rek bu doonoon seen xibaaru buzz euh, dig daje sam samedi ci yeneen xibaaru buzz